ma dignité gu ànd ak dal jamono junne lañ ma sa doxal te di ko naka Sénégal ah yaa ngi si jàmm ah ñu ngi fii rek jàppal bàyyi xam nga Espagne nag mu mel sa bis bis bu nekk mu gën a doy waar quoi. na xam ne àddina moom rëccu lu tax defuma ko moo gën ma rëccu lu tax ma def ko. Fatou so dëkkite doomam dëkkite doomam ma eh, ci gaal la jaar rek te man ma ci sa jar baa tëgg xaw ma ban dëkk. jox na ma numéro après si j'ai ah, ah, le naa la ah, yow dafa mel wax naa la à chaque fois suñuy wax dama lay wax man caaxaan taxumaa jóg kon su ma sañoon nga ñaan si ma soxna wax nga dëgg chérie yi affaire soxna boobu ngay wax nan tan à chaque fois tamit man itam loolu laay xalaat ci yow bu ma sañoon tamit ëllëg nga doon sama soxna li sama xol di yëg sama xel di gis lu may gën di dem gën a ñàkk nga teewul ñu ngi ma naan dina baax a fis eh yow laa eh. fal yow kay puy nga de de maa la dégg ay une heure du matin nga door dugg si buntu kër gi nga door a romb buntu bi naan yaa ngi dem tëddi gis nga bu la huit heures et demi fekkee ci buntu bii bu dugg ci de ndax fii 9h ñëppay tëdd. yuuxu bi jaru ko fi déedéet sama miya moox laay xaar.